asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 12 avril 2019 ñu ñëw yéen ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey la ñuy xëy doore ko sunu làmb nag dafa mel ni daal tey dafa jàpp ne mois de juillet bii nu jëm dey bu nu ko fekkee te tal ko kon yàlla nañ ko fekkee te tal ko li leer ba leer bu ñu sa yeggee jàpp na ne day weer la woo xam ne nar naa neex lool lool lool lool ci mbirum làmb li tax nag yëglekaay bi wax ko nee na jàppal ay grand combat yoo xam ne yu amateurs yi namoon soxla ko ca nar a am ba ca jëkk mooy kii nga xam ne nii moom moo di Lac de numéro 2 ak Boy Niang bu dëggool te kii nga xam ne nii mooy Baye Ndiaye jaar fa tëgg boobu combat ñu ne déet ne waaye ba tey ci mois de juillet ba combat royal ba nga xam ne nag Moustapha Diop borom OK Africa moo fa jaar tëgg ko war a dox ci diggante moo loo mi dëkk parcelle ak Eumeu Sène bi nga xam ne mooy roi des arènes moo tax sunu làmb jàpp ne day jàpp leen lii moom nar naa doon tukku sa bën saañ ba réer te mois de juillet nag ci la loolu nar a am ak yeneen combat yoo xam ne sax day boo sàgganee mën naa am mu jege foofa waaye loo ci mën a dégg daal sunu làmb ñëw na ci ab yaatal keneen koo xam ne moom yëglikaay bi daa xëy ñëw ci moom moo di Cheikh Sow Cheikh Sow nag mu ngay wax la ko neex ak la ko naqari nee na képp ku jóg ngir bëgg a suul Rock Énergie yaakaar na yow da nga koy jàpp enterré ko daal suul ko noonu mucc na ne balaa nga koo suul boo sàgganee yow yaay njëkk a suulu Cheikh Sow loolu wax loolu mooy ay waxam ñu ne ko diggante Eumeu Sène ak Modou mu ne ndox du bàyyi yoonam fan daan jaar dong la ñuy jaar lu dul defal ko bagage daal intéressé te ca loola la ñu ne te loola mooy am kii moom ab combat ak santa ñi ngi ko tëggoon moom nee na daal boo bëggee dégg-dégg moom Tidiane Faye nee na négociation yi moom ci wàllum maanaam daal diyee wala andilee beneen mbër wala beneen avance da koy lekk ngir bëri ji parce que nag nee na moom nekku fi di xaar-xaar boo xam ne xamul tey la jëm xamul suba la jëm keneen koo xam ne moom sunu làmb ñëw na ci moom ne nañ ko beneen sens muy double moteur ginnaaw bañ ko ko jëkkee may ci maam Balla te jàllu ko woon sunu làmb ñëw tey ci moom leneen loo xam ne tamit dañuy dem fekk ko ci fii nga xam ne nii moom moo di ca leewtoo point net muy Pape mbay ginnaaw ba mu tojee Gàmbi waa leewtoo ngay laaj ndax loola mu def foofa est-ce que bu ñëwee fii dina ko mën a continuer ñoom ñoo xëy di laaj leneen loo xam ne tamit ñu ngi koy laaj ñoom waa Leewtoo point net mooy combat Garga Mbossé ak Moussa bi nga xam ne ba tey fi mu nekk nii boo xoolee ay semaines yu néew a ci des te promotion kenn gisagu ko ci kenn déggagu ko ci loolu ñoom ñoo koy laaj kenn koo xam ne tamit rakk ji am na combat di soq te moom amagul combat waa Leewtoo point net ñu koy wax muy kii nga xam ne nii moom moo di jëtli bu Pikine loola ci Leewtoo point net la nekk waaye nun dañ fay jóge dem ba l'observateur lobsu nag père Max Mbargane na fa xëy tey di wax ci turu Leewtoo père daal la mu xam ne daal nee na leer ba leer day saison bi moom li ci des xat na te amuñu yaakaar na ci diggante bi ñoom waa Leewtoo mën nañ fee tëgg ay komba loolu moom du wóor la wóor daal mooy mbër mu bëgg ñu jox la avance ñu xool dem ba déwén waaye nag nee na bu sësee ba sës moom li leer ba leer mu diyee ba diyee wala mu ñàkk ba ñàkk yaakaar nañ den tëgg sax bu dee benn combat ak journée boo xam ne li simple lay doon loolu daal mooy seen ay wax wala waxi Max Mbargane ca fii nga xam ne moo di l'observateur ka nga xam ne moom mu ngay tëgg di dem mooy asan Ndiaye Assane nag fi mu nekk nii yaram wa tàng la def lool ba yegg ci jër ndax nag kii nga xam ne nii mooy Assane suba moo woote fa nga xam ne mooy ca stadium Iba Mar nga xam ne nii mooy wulli bu bool ambulance bu Thiès ak combat ya ca aju te dana fa woo kii nga xam ne moo di double mësër ak fëgala asana ko tëgg ñu ne déet ne waay asan dollete ca leneen loo xam ne nii daal lu doya doy waar la muy pap ndoy bu faas ak papa yadd bu lébu gi muy combat boo xam ne nag combat xale combat bu nar a méttee métti waaye li olof yi wax rek ku mënul bawoo lu yàqu lu yàqu boog yow a taala njaay waaye asan mii de fi mu nekk nii daa mel ne na jër waaye kenn koo xam ne aw le 4 juin mooy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production muy diggante aada fas ak kii nga xam ne ni moom moo di ondu la fu maca Pikine waaye loo ci mën a dégg daal waa Leewtoo daal ñoom ne nañ léegi kon benn combat bu dee ba dee dinañ ko tëgg wala mbappat Taala Ndiaye loo ci mën a dégg olof ne na bët du yenu waaye xam na li bopp àttan salaamaaleykum mbokki suufu Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak yéen ci seen revue de ren comme ni ñu koy ànd ak yéen chaque jour ci semaine bi di ci ànd sama mag sama xarit Babacar Chéri Teneng Babacar nuyu naa la. ay sama lay fay ah Chéri Teneng maa ngi nuyu Teneng ah, di ko nuyu di nuyu xale yow tamit di la nuyu di nuyu Moussa Niang Chéri Moussa Niang di nuyu ñëpp ah di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm si ajuma ji di di ñaan yàlla ñu buur bi mu boole ñu jégal ñu ñëpp quoi defal ñu jàmm barke bi sallallahu alayhi wa Euh, Babacar ñu dugg si waxtaan bi dem ak li nga xam ne nii suñu lamb tey moom la indi à la une mooy journée yi nga xam ne ñu ngi koy xaar euh, mois de juillet diggante booy Niang ak la de ak ki nga xam ne nii mooy combat royal bi diggante euh, Eumeu Sène ak. Modou mu nekk ay affiches yu xam ne ni nar na exploser mois de juillet. waaw loolu de moom alhamdulilah rek la ñuy wax parce que loolu xam naa dina neex amateuru làmb yi dina neex waa axlu làmb yëpp parce que kon jàppal ne mois de juillet boobu nar na metti ndax boo jëlee Lac de Guiers 2 Boy yaakaar naa seen combat bañ koy dox yàgg na. waaw ñu naan dina am ak du am ak lak nangu naag bañ naag yooyu ba yàlla def ñu dem ba xëy benn jour rek ñu ne que combat bi dèjà taxaw na ku ko taxawal ñu ne Baye Ndiaye ñu jàpp ko pour le 14 juillet loolu a wax mooy que ni journée ba nga xam ne nii journée bu nar a neex lay doon parce que moo tax nit ñi fi mu nekk nii di xaar seen combat moo tax daal mois de juillet boobu comme na ko soxna sa waye woon rek nar na neex nar na yëngu suñ ci jógee tamit ñu dem ci combat combat boo xam ne tamit loolu actuellement actuellement nit ñi bëgg nañoo xam Eumeu Sène ndax dina daan Modou Lo wala Modou Lo ndax day def deux deux zéro comme niñ ko xamee te loolu lépp ci mois de juillet bi la nar a am boobu tamit Moustapha Diop jaar fa euh, OK Africa moo lay wan ne que daal actuellement nii moom jàppal ni mois de juillet bi comme nu ko sunu làmb yu seetloo tey moom waaw yomb moom mënu faa am moom kay cin buy bax lay xel di doon rek roqo sedd bu soobee yàlla mais yàlla nañ fekkee lépp te ko rek daal Babacar euh, mois de juillet bi du yomb mais week bi tamit du yomb parce que euh, gala lutte avec euh, frappe yi fa lañ jëm samedi Assane Ndiaye dimanche ki nga xam ne nii mooy jam production sans compter tamit lu simple bi am dimanche. Adrien Senghor waaw loolu moo lay wan ne daal lamb ji actuellement nii mu ngi dox bu baax a baax a baax yàlla na gën a continuer ndax xam nga Assane Ndiaye moom mooy ñëw suba ci journée boo xam ne nii lépp ay grand combat la boo xoolee wala boog presque cinq combats yi ci ambulance bu Thiès diggante ma wulli de te compte bi metti na jël nañ ambulance jël nañ wulli mais ku nekk da nga naan sa morom yaa ma doon moytu asana leen kaa leen ma leeral ko mu indi beneen combat dugal ko ca muy yegsil bu Ngunjaan nekk école de Bada Dione ak Boy Balde yaa ngi dégg bu nekk Sébikotane muy combat boo xam ne tamit combat bu naram métti la drapeau Ablaye Lo di maire Sébikotane waaye yemu ci am na yeneen combat yoo xam ne ñu ngi ci biir général Diouf bu Mbour ca nekk ca Bombardier ak explosé bu faas nekk écrit Fass ca Gris Bordeaux ñu ne déet na waaye nga indi Ama bu Malika ak Koña bu écrit Ndakaaru Koña numéro de kon moo lay wan ne daal suba ci samedi ji dina metti lool lool lool waaye buñ ca jógee dañuy dem dimanche ak jam production ñu koy nuyu di ko siyaar encore une fois moom mu indi laay Pythagore ñaqi jariñ muy combat boo xam ne ni xam nga ñoom ñaari mbër yëpp ku ci ne am ci loo jóge am foo bëgg a dem jam boole leen mu tegaat si beneen combat boo xam ne tamit bu nit ñi bu grand combat la muy Zal Bawal ak brise de mer numéro bu caaro yi mais combat àddina bi ñëpp di xaar mooy wulli big pato loolu lépp tamit di am ci dimanche bi sans compter Adrien Senghor ak li simple ba fa a am kon moo lay wan ne que daal weekend bi moom bu soobee suñu borom yàlla nañ fekkee lépp ko mais lamb yu neex a neex ngay gis entre ci Iba Mar ak Adrien Senghor quoi li avec frappe bi ak li simple bi waa di encore une fois di nuyuwaat Jamaïcain rek di nuyu di nuyu Babacar euh, ñu des ba tey ci combat yi parce que tey Assane Ndiaye moom nii ay suba andi lan ñu beneen affiche bi dox diggante Papa Yada numéro 2 ak ki nga xam ne nii mooy euh, Pape Pape Ndoye bu Fass mu nekk tamit affiche bu bees tàq mais tamit affiche bu neex Babacar. waaw affiche bu bees la waaye affiche bu neex la parce que boo xoolee Assane Ndiaye combat Pape Ndoye doxoon na ko pour moo qualifier bañ ne woon d'accord nañu mais par la suite après ñu ne loolu amatul ba quali euh, kii di qualifier mu dem jëli gàmmu gi. boobu ba tey Pape Ndoye yor am xam naa loolu moo tax combat bi taxawal bi jafewul Papa Yade dafa ne fekk naa ko tëngeej laaj ko mu ne Pape Ndoye ñemewul a jël sama avance yaa ngi dégg loolu la waxoon ñemewul a jël avance am nag far na jël avance am Assane Ndiaye jaar mu mel ne Assane moom tamit actuellement yaram bi moo tàng parce que boo xoolee combat yi muy taxawal xam nga ne ma fëgala ak double moteur loolu bés gënu koo rëy te am na yeneen combat yoo xam ne Assane war na présenté mbër yooyu suba moo lay wan nekk daal mais taxawal na combat bu neex a neex Pape Ndoye ak euh, Papa Yade <laughs> Pape Ndoye nag daa delluwaat Tëngéej ndax duggoon na fa ñamante fa ñamante fu metti moo gàmmu gee yàlla def gàmmu daan ko tey nag demaat na xaw ma ndax bi yoon dina ko réussir wala la gàmmu wala la Papa Yade waxoon lay lay def mais loo ci mën a dégg daal Assane vraiment daal actuellement moom mu ngi yëngatu bu baax a baax a baax waaw keneen ki nga xam ne ni Babacar euh, yëngu na muy euh, Ndiaye production Fallou Ndiaye parce que combat bi di dox diggante Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Onde le Fou jàppal na ko date le 4 mai incha allah la ko bëgg a dëgg. waaw loolu Ndiaye production moom itam vraiment mu ngi doxal bu baax a baax Fallou Ndiaye ndax euh, mu ngi tëgg ay combat yu neex a neex ndax Ada Fass espoir la bi nga xam ne actuellement ni dañuy xool yoon bi mu nekk di dem kan moo koy arrière kan moo koy arrêté actuellement loolu mooy wax ci parce que xale la boo xam ne macha allah mën naa bëri te ci goxu làmb dëkk muy Fass mais nag muy bëri mbër boo xam ne nii tuuti nañ mais ku mën a bëri la ondu la fou boo xoolee bërekat pire pire mooy Onde le Fou kon Fallou Ndiaye moom tamit li ñuy wax rek ku nekk yaa ngi euh, bay ci sawaar di dem daal lamb ji yaatu na mais moom vraiment Fallou mu tëggaat combat ah, ndax nag Onde le du bëgg Ada Fass ko ci lamb ji te Ada itam day bëgg lim nekkee woon mu continuer ci. bëggul ko téye kon enjeu ba foofu moom déjà taxaw na ba pare quoi waaw. waaw ñu tëj ak ki nga xam ne nii mooy Cheikh Sow président Rock Énergie moom nag day yaatu ak li nga xam ne ni mooy sunu lamb parce que nee na képp xam ne yaakaar nga ni dangaa bëgg suul <laughs> Rock Énergie balaa nga kaa suul <laughs> ah, dina yomb parce que ah, fu mu loo génne ak yeneen parce que boobu yaakaar naa suul ko dootul mën a yomb ci làmb parce que marqué na empreinte am parce que buñ ko créé ñuy dem di dem créé waat na yeneen écurie ay dóor dóoraat ay euh, xam nga yeneen écuries yoo xam ne ñu ngi parcelle te tey ay champion nga fay fekk organiser na Cheikh Sow euh, xëy euh, a tàng ci ñu wax xam daal mooy écurie yëpp yàlla bu kenn suulu yàlla ñëpp taxaw ku ne di exercer li ngay def di ci gis ay résultats yu nga xam ne yu positif teral seen ay wayjur di ci dimbali ay nit kon yaakaar naa daal Rock Énergie yàlla na avancé écurie yëpp tamit yàlla na ñu avancé parce que loolu mooy tax lamb ji neex ko Aïssatou waaw. waaw Babacar ci lool la ñuy tàggoo ñi nga xam ne nii ñooy suivre. balaa ngay tàggoo l'observateur dafa ñëw tey ci Leewtoo. ah waaw waaw l'observateur tam ba tey ñëw na ak ki nga xam ne nii mooy euh, Max Mbergane ah. ñëw tey wax ci li nga xam ne mooy journée yi Leewtoo ñu koy xaar boobu ba léegi moom nag li mu xam ne mooy euh, fi mu toll journée yi mënatul bëri euh, peut-être ñu am benn journée simple ak benn journée frappe pour rek bañ a léewtoo peut-être léewtoo bañ a toog waaye nag li mu wax daal ñi ngi xaar gisaguñu affiche. waa gars de moom dañuy xaar ñun nag euh, Leewtoo TV lañ bokk bu Leewtoo TV ak Leewtoo production lépp Leewtoo la waaye loo si mën a dégg daal li ñuy li leen di xamal mooy euh, làmb moom dafa am nuñ koy defee. duñ leen ko duñ nekkul ne dañ leen koy jàngal parce que xam naa sax ñooñu cëpp xam-xam mais suñ xalaat lañ yor di leen ko di leen ko dolli rek en tant que frère mais en tant que koo bokkal liggéey ni saison bi xam nga ne mois de juillet lay tëj Ama Baldé Gris Bordeaux Bombardier Siteu Papa Sow du combat yu ndaw déedéet du combat xam ne da koy tëgg ci deux moom waaw loo ci mën a dégg nag li ñu leen xamal daal mooy que ni comme loolu mas wax ne que benn combat daal au nañ ko mën a tëgg ak benn mbapat ah yàlla nañ ko def réussir ko encore une fois dañ waxal ne rek olof la mu waxoon rek bët du yéen waaye xam ne lu bopp attan waaw te itam nag yaakaar naa ne am na loo xam ne nii euh, boo ko bëggee def xëy na di ko bëgg a def wala nga mën koo def mais est ce que boo ko defee dina la arrangé wala boo ko defee la ca xalaat di ko ci mën a parce que lamb yooyu dafa laaj communication bu doy laaj promotion kon du lamb yoo xam da koy xëy tëgg tey rek waaw laaj sponsor lépp lépp la laaj parce que du lamb yu tuuti ay combat bu ci ne ay millions yu bëri ngay fay ñaari mbër koy seq muy trois grands combats kon encore une fois daal waa Leewtoo ah ñu ngi leen di wax ne que daal nañu xoolaat bu baax a baax rek mbir mi moom yaatu na. waaye nañ ñëw rek. waaw non dinañ ñëw sax ñëw bi moom yaakaar naa dinañ ko def au minimum ñu ndil amateur yi benn lamb parce que daaw ñëw nañ fi defar saison bi ren tamit xëy na ñu ngi leen di xaar mais au moins sax ñu indil ñu benn combat xamuñu nag bu tànn ñoom waaw waaw waaw Babacar ñu ngi leen di xaar xam naa comme ñeneen tamit euh, ni ñi ñuy xaaree Leewtoo pour mu andi partition ci saison bi dañuy yónni yàgg rek comme ni nga tàmm di waxee ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di leen euh, bëgge bu baax si àjjuma bi te di leen ziar di leen ñaanal àjjuma jàmm ak salaam di bëgge Mame taala ci caméra bi moo ak ñoom euh, Mansour ñoom yàgg di bëggee Ousmane ci montage bi ak képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV waaw Aïssatou noonu la demee tey di ajuma tamit ñu balawaat nit ñi ak rek encore une fois ñaanal ñëpp jàmm xam nga nuyu équipe bi Leewtoo bi yëpp nuyu tamit suñu kilifa Pape olof ne na liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya di ko ñaanal yàlla defal bépp doomu aadama rawatina jullit yi parce que rek moo fi nekk daal parce ku ku dañ laa deey yaa ngi te comme li wax rek jàmbaraamu fi mais ku yàlla dimbali moo fi nekk kon yàlla dimbali ñun ñëpp di nuyu ñuy suivre parce amuñu seen fay ñuy commentaire vidéo yi amuñu seen fay parce que tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye moom mu ngi Sénégal ndeysaan Palmarin maa ngi koy nuyu di nuyu waa Palmarin moom Allemagne la nekk mais actuellement mu ngi Sénégal la wax ak Xavier tamit dëkk Palmarin moom mu ngi Sénégal di leen nuyu ak di nuyu ñi nga xam tamit xam des fois nit jël téléphone am woo Aïssatou wala mu woo Babacar ne dama lay béggee wala nangam nangam li ngay def neex na ma kon ñooñu amuñu seen fay li ñu leen di wax daal mooy que ni yàlla nañu ñu yàlla na moo ci am solo quoi te ngeen ñuy di nit day jum des fois nga xëy def lu nga xam ne day nekk erreur du neex kenn mais dañ leen balu àq di leen baal et di leen ñaanal jàmm di wax ne daal xol bu sedd yaram mu sedd yal na ko yàlla def ci askanu Sénégal gi yëpp mais yal na ko yàlla def si àddina bi Pape Diofior maa lay nuyu depuis Diofior waaw. ci loolu ñu jox leen rendez vous lundi ci benn revue de l'arène